voilà donc euh, boɓi kañƴi ɗum ɓato cingo saabi ñande siɗu ke bon ki peskidi donc woti ɓo tinsuke tinsuk po mairie nin gues euh, hay pour euh, vernissage jaaɓe wal wallu ina min mba haɓɓe ndi exposition e mbaɓɓe ndi ɓo haye ɓo temmana mboy kam gan a yore walli culture ndi ɓoɗe faɗane wat fere a présenté o e ɓo as gan ɓesɗo he bappomi kañiɗa eyi eh, mi taas ɗo bokkani ɗo mosna mbaɗuɓe jaam rek eyi ɓo contane min jaf pelem ga moɓe yorte ɗum ga donc nga ham gana habbi dan di wara ka e bo ɓo na fobo exactement wacham kida e we waral ini ini la le 19 mai legi ini waral a wende findena sakkis wala ka ɗo do dakaro o ya ini am bienal. biennal pourtant nak artiste aji fu futte bo inif min bo hot bon na ini kof na dem bokkaci ɓe nga le wois nak onika ka si xamantene nak bo habita onika war première fois ngan commune jeswi warak artista ci hay mate ko bo overtim bo innoxana ba e, pour renka bugan jammal e, e, artista ci ligging ba bugan jammal aussi culture nsafi wet ɓuwaɗ haɓi wooti ndax culture fat ɗa weɗi cot ndanka ndanka sanno kina xamante ne o miski ɓolol ndax culture bo o fetaɗi culture moom a in laayi manque manque ngaɗa voilà te ɓuwa tana ɓo gan peese pour culture gorsa fi ogana gana token. wa donc on walking la bo marata wet wa mushab wa habdo war mustira ko on peut dire que c'est la première fois wara kandi ngangoti fu njumdi de yaf yore walu culturing culturing saving di ngang communing communi e photo culture emna te in man ando pour ko ngada do do envisager is habit in wiris do habdi envisager is habit wine in wiris ah corka bab ah fo yef wo werde rek war han ra rakondi musira ko commune Thiès e eh, ñam dengu wallu culture tourisme na artisanat ngan commune Thiès voilà inam tene kontaɗinga trop ten rakkasas nga ndaxte kini wosan cewene culture saafi in lay winga wiɗi muƴɓo e yakati ini bafaɗenoɗo one ken moɗi e culture saafi o jangɗoɗin sappi o jangɗo in baawe donc ina hamantene ko kurɗa isnan min kaɗa fe mine genna voilà ɓo kuru inida nak bu waari organisé benn festival yakin festival e xamante ne comme ci xamante ne ɓa rima mañaɗi o teɓɓa wallu culture saabi fina yaɓɓoce pesonge kon fina saabi jo peso waɗam wonaf kuru ngara fo jomba cicinga fo sup cicinga natte culture saabi mus jangɗo ɓoɓe in teɓanɗa inemna festival am nak momeɗi mañe ɓo waɗiɗa won artiste aji jen ɓoɓe ruɓɓonga ko no xamante ne min ɓo ɓatga wallu jippinam culture saabi ɗa pour ɓo gana bonam bo soxle da nga boba bari donc culturing saf dem poy e bo hotina aussi euh, bo hindi remarkani bo habid wetna euh azabi alay artiste lol euh alay bi hamata ngan aussi ben ci xam inci ci bo rak ndi e information ndu wet kadi video ware cadeau wet wala weta parce que bo hot car kat artiste xam ngan exposé ndi donc wewe problème exactement ah ba problème ni nga sax de ndax te inci ham ci cadeau ko marka biennale la bo woné bo ci exposé nga ba ko biya tous ine mbeɗo te ko teralu nga weta nak bo da kabi ni kisti nga information yu ko kadi zahde de e peut être artiste sa vite bibi nga rax di ki xamantene ba ko exposé za ndem comme comme ni na ma cembo ndem da kiski woy sax ya ba minni ni kala de disque wiris dak artiste ni ndi amela ah, nga exposé dakar mais awona woy dal an hayandi pourtant a gendi ko minin ko mais on an hayandi am nga pasque ɓo saabi wo tu ɓo yino lukkomin rak tamet ɓo tu ɓo mbokka ɓo yino voilà artiste aji aussi ɓo lancé vidéo ɓo lancé message pour ɓoci tout wonno artiste af min hayɗa fo haynga wa ɓominga rek nininaa keɓa kat ɓeyɗo kadducima nen popare sa ɓamin iwiru fino waye nde wiris ɓo ɓiɗi envisagé ɓonani def artiste ɗiɗa ɓo waɗɗa ɓo ɓohotɗa ɓoɗande ɓowaade ini voilà lino cani kay kanak sa ɗisik wiris ndina ɗisik wiris ɗa par que comme ini woɗatanci rek ɓamindi weesu ina mo siɓo zordo nga voilà ɓowaɗe ɓattemo jen ɓa weeñ ndax ta liggi ɓa liggan ndi ɓa liggi liggi hamante no moɗi lol lool lol kono donc ɓominma embois ɓomin wallu commission ndi culture tourisme artisanat a ah ɓominma doolel pour no ɓomin kat bikki ɓa ken teɓo hafɓa culture saabi kan kat bikki ina mo waɗiɗa trop teɓo kimno so ɓonigam presse ndi ɗum kan ɓo amoga ndaxte ɓomini ka zandu ɗumini ka zandu wonɗa sohlemo rabte ga donc ɓoyɗa faɗan faade fayrango hon ye par rapport ak euh, euh, artiste aji ɗin ɗi fof message ji baba lance an wayni kane wa artiste aji message ngama lancé wedne ɓagan gorgorlu ar o miski lool ndaxte ɓiɓinga laa ɓe yaɓi comprendre ar ɓe yaɗa comprendre ɓa liɓna ar dal wedne won téléfilm a walla mbeƴ enjitinga dena ƴeek dedet o emɗi ndem cintiɓo tout ca ar sculpture ar tableau d' peintre kem tout ca ar ceɓa art donc aro yaatu yaata xamantene lay trop kon donc nani da habinga bonar talanga da kana gor gor gan am nga kosa ko kosa raf mindikat oni oh, kina xamantene helati oh, helatina fu helati lay kon ah, bu artiste ko wir kimba ah bagan gor gorlu inna bo ni ngana commission culture na nak boy ba am boy mu na boy ba am bo nga bu baaxa ba bakkat kan fa fikki te bo soxlay ba ko soxla ɓo to mit société ne soxla ba waaw merci beaucoup ɓo corkiɗeru boubaxa ba anike ambassadeur safindi depuis yes euh, pour kipeski corkat corok safici pompe wiis na in wiris ndingan kipeski